coow diggante Modou mais liñ ci sentir euh, comme benn virgule bu ndaw tey bu Ama nekkoon des arènes dana compliqué ci carrière Balla Gaye non Balla Gaye na lu muy compliqué ma nekk roi des arènes non non non loolu lu tees nekk naa roi des arènes sama rax bu ko nekkee day mel ni maa ko nekk. mais bëgg nga ko ne. non déggoo li ma la wax amul kuy liggéey te li nga xamante lu ñëpp soxla moom nga bëgg am mais dafa am nit ñoo xamante ne ñaar ñooñu kon tey sama diggante ak Ama Baldé bu ko nekkee sama xol bi day sori guy kon galas day mel ni maa ko nekk loolu ça n'est rien voir ak loolu. ama diggante Modou Lo Ama na. mais Balla Gaye 2 ak Boy Niang buñ koy wax kon kay te bala daan na ñëpp waxuma nag kon ngeen wax ay Ama ba Ama de. tu es le meilleur lutteur d'accord nga ci loolu. non loolu dama ci dugg nag vraiment. <laughs> lutteur du peuple quoi c'est vrai ou faux. <laughs> loolu dama ci dugg en daal. Euh, làmb moom làmb rek la euh, ñu gën a siiw yi xam nañ leen ñu gën a ñu gën a populaire xam nañ leen mais comme moom nañ ko nemee rek alhamdulilah loolu mbégte littère yëpp la waaw